الأمين سيدنا ومولانا محمد المكين وعلى آله وصحبه ذوي الرضوان والتمكين بكي السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته نيجي أم بكتب باختي سنتي واي تي جتاي بي ndax barab bi jataay bi amee fi lañu juddoo te it mënees nañoo wax ne fii lañu màggee lu mel nii ci lu baax bu fi amee duñu def lu dul sant ci borom bi subhaanahu wa te ñaan yàlla mu gën ko ful di ndokkeel bu baax suñu kilifa ci jataay bi muy imaam Moustapha Samb maak Cheikh Ousmane Kane Ndiaye mii dafa am noo xam ne dañu koy dund ak moom ci loo xam ne du lu ñu toog réunion ko waxtaane ko ci yëg-yëg la rek pas-pas boobu ñu am nag fépp fu ñu mën a dem ci pas-pas boobu lañuy dox mooy kenn ci ñun bu teewee kenn day yóbbaale ñépp ndax li ñu bokk di xencu ci barab bi mooy ndaw yépp xam ne dëgg la dund mel na ni lu gudd mel na lu yaatu waaye lu gàtt la waxtu yi nga xam ne rëcc na la boo ko booleek waxtu yi la dese di nga yëg ne li ci yàlla am bariwul kon lu la mën a dimbali nag mooy nga jël sa tànk teg ko foo xam ne ngërëmalu borom bi subhaanahu wa taala bu ëllëgee dinga ko mën a am te loolu weesuwul jaamu yàlla kàddu yi saa su ne bu ñu dajee benn la mooy woo nit ñi ci njub xirtal leen ci siraatul mustaqim ndax fi nga koy waxee day ña fa ëpp ñi lay déglu ñoom ñëpp la xam kon nag la ca am solo mooy wax ji na yàlla rekk tax Cheikh Ousmane ñu ngi lay masawu ndax li gën a metti ci boroom xam-xam mooy nga ne ko dama bëgg bés sàngam nga defal ma conférence ci tem sàngam bu desee fukki fan ak juróom upp nga boppam ndax yitteem yépp mooy nan lay def ba teg ci xolu nit ñi loo xam ne dinañ ko mën a jëriñoo ci lu nëbbu ak ci lu feeñ moo tax bu ñëwee rek la ca gën a yell mooy ñu jël lépp jébbal ko ndax kat dinga waajal wàccaay goo xam ne boo ñëwee xaaju xaajaat ba sax doo ko kon nag ñu ngi lay masawu ci loolu di la ñaanal sunu borom subhanahu wa taala yàlla na yàlla dëgëral la maa ngi ndokkeel association bi ndax ñun ci lañ bokk man ci laa bokk imam Moustapha ci la bokk Cheikh Ousmane ci la bokk euh, monsieur le maire Pape jóob inscrire naa ko tey ci la bokk Birahim Diop moom tamit inscrire naa ko tey ci la bokk maxtar Sarr mii inscrire naa ko tey ci la bokk léegi nag li ci des mooy ñun ñi jàngalekat yi dinañuy def ñaan waaye ñetti membre yi ma dolli Birahim Diop euh, Pape Ma Diop maxtar Sarr ñeenti junni laa lay sas yow Makhtar chaque mois nga dugal ko ci keesu association Birahim yow it ñeenti junni chaque mois ci keesu association bi Pape Madiop fukki junni chaque mois ci keesu association bi loolu maa ngi koy dénk mbay ñu taxaw ci bu ko defee am naa sañ-sañ boobu ci ñoom yàlla na yàlla mottali ko te oyofal ko ci barke alxuraan xam naa Birahim mooy xaw a tiit ndax xam nga ab tijaan moom boo ko waxee xaalis rek fit bi day dem waaye maxtaar moom amu ci problème mbégte la ci am ndoon Ibrahima mu ngi calculer su ma naree génnee lii génne lii génnee lii war a joxe waat vingt mille waaye lépp dina yomb ndax sëñ Ousmane dina ci def taw tawféex incha allah kon ñu ngi ñaanal Cheikh Ousmane yàlla na ci yàlla may ndam ci li muy waxtaan waxtaanee beneen bi mooy imam am naa xel mu dal lool ci association bi ndax dama ciy dégg membre boo xam ne mooy imaamu jàkka ji di jàngalekat kon nañu koy bàyyi xel. ñaar moo am defe naa li ñuy wax spirituel ak contemporaire waaye nag am na foo xam ne boo leen fa teewee laaj leen nan la ko diine bëggee kon nag ñu ngi ñaan imaam wàll googu yàlla na la ko ci yàlla dëgëral suñ borom sàmm la ci wasalaamualeykum wa rahmatulah